am naa mbégte ci xale yi am naa mbégte ci jeunesse sénégalaise on est fiers de cette jeunesse cette qui a montré qui vient de donner un exemple au à ce pouvoir ñu ngi ñaan xale yi nañu ñibbi ñu ngi ñaan xale yi dal nañu nañu dal bu ñu répondre à la provocation ñu ngi alerter les autorités la police est en train de provoquer les jeunes la police est en train de charger alors que xale yi defuñu dara. police mu ngi door ay lacrymogène alors que xale yi defuñu dara ñu ngi avertir autorité yi au calme vous entendez c'est des cris de joie ce n'est pas de la violence kon ñu ngi appeler tout le monde à la retenue ñu ngi souhaiter à toutes les femmes du Sénégal une bonne fête de la femme et on dit vive la justice vive la justice et vive le peuple. di ci place de l'Obélisque bi li ko waral mooy la démocratie sénégalaise bu ko kenn laal bu ko kenn touché sunu borom dogal ne ko tey jii. lii mu may nii yëpp Sonko moom moo ko waral ndax mënoon na cessé depuis le dès le début mais yàlla def na ne que tey yàlla may na Sonko ci kaw Macky Sall ndam ci kawam yàlla may na ko aussi may na aussi peuple sénégalais ñu exprimer aussi si ñoom ndax du ñëpp ñoo ñëw fi ndax Sonko ndax ñeneen yi aussi ñëw nañ fii di défulé wu seen colère ndax dafa yegg ba seen gauze donc Macky Sall nañ ko lii mooy première alerte ci moom mu xam ni sénégalais yi sonn nañ sénégalais yi xiif nañ sénégalais yi mar nañ na Macky Sall xam ni ñi nekk ba ginnaaw fongolami ñu ngi ñuy dégg gis nañu manifestation pacifique bi dañ manifester wu ci jàmm accompagner le leader Sonko ak ñeneen ñi nga xam te na ci yëpp ak toutes les manifestants ñu tàcc ko jaajëfal ko aussi xam ni tamit c'est un patriote boobu ba léegi mu ngi xeexal sénégalais à l'Assemblée nationale di wax di wax a continuer suñu gaz moom du ko teree xeeñ troisième mandat dañ fi fiy bañ troisième mandat non à la troisième mandat non à la troisième mandat non à la troisième mandat non à la troisième non à la troisième mandat non à Sall sa askan. lii nekkatul mbiru Sonko toute la jeunesse consciente vous regarde vos faits et gestes on est en 2021 foo xam ne ni lu xewoon 1960 aux années 80 ce n'est plus d'actualité yeewu nañ booy yeewu nañ li nekkatul mbiru Sonko. nañ libéré les otages politiques du ñu bàyyi. du ñu bàyyi Guy Marius Sagna ñoom ñëpp du ñu bàyyi tant que libéré woo leen te respecté suñu droit ak ak yelleef doomu aadama sonn nañ. suul gaal booy xëy ñu amuñu liggéey Macky Sall bëgguñu dëkk bi tàkk ñun ñoo la fal ànd ñaa yow mais ñun ñoo la fal dégluñu booy message la ñuy envoyé déglul pour le pays rek réaction bi ma am mooy dama bëgg ci peuple sénégalais parce que gis naa ne que jeunesse bi ils sont motivés te gëm nañ seen dëkk parce que ñun lu ñu bëgg mooy suñu dëkk avancé jëm ci kanam mel ni Dubaï wala mel ni Qatar mais mënuñu bàyyi ay njiit yoo xam ne dañ lay toog fii di lekk suñu xaalisu dëkk di sonal booy ñoom ñuy nekk ay milliardaires di pàccoo xaalis loolu mënuñ ko nangu xaalis bi day ñëw ci jeunes yi yi liggéey dëkk bi avancé Sénégal jëm ca kanam. waaw non dama dañuy lii tey ñëpp ci kontaan. parce que ñun xeexaluñu pour Sonko xeexaluñu pour Macky Sall ñun dañuy xeex pour la démocratie dañuy xeex pour l'injustice dañuy xeex pour liberté d'expression ñu jaarale réew mi ci yoon kenn ku ne bañ a def ku ma mu am ku ma amul ndey loolu moo ñu tax a jóg parfois gars yi faa ñu comprendre ñun suñu combat ñun dañ fi nekk pour démocratie que la démocratie règne dans notre pays c'est a qui waaw mais li am solo mooy jàmm moo neex lii dafa neex jàmm dafa neex dañu am fayda dañu respecté suñu Sénégal suñu société yëngatu na suñu société yëngatu na ñun dañu am fayda dañu am fayda dañu respecté suñu Sénégal suñu société yëngatu na suñu société yëngatu na

justice réew mi dafa war a am démocratie Adji Sarr li nga def ñaawlu nañ ko ñun ay jigéenu Linguère lañ ñun dañoo gore moo tax tey ñu ñëw ne ànduñu ci li nga def dañu ñëw ne jigéen dootuñu ko utiliser ci xeex yi léegi nag lu ñuy ñaan mooy suñu paree ci lii suñu moor yi nañ leen rendre hommage ñu dem xool waa kër ñi dee ñu jàppale leen Sonko nag libération des na de et la lutte continue des na xoolal justice à nos dañu xeexal Guy Marius Sagna Guy Marius Sagna génnagul de Assane Diouf Keldo Sène ak plus de cent patriotes yoo xam ne waa Pastef lañ te génnaguñu kon la lutte continue la lutte la lutte encore fini justice à nos morts xale yi dee tey pour seen réew duñu arrêté combat bi day dem démocratie day am ci dëkk bi démocratie ak ñun ñun jeunesse bi ndax ñun ñooy yor réew mi ëllëg donc on est prête voilà merci. gis ni benn lañu lañu taal fii benn oto lañu lañu taal fii ci manifestation yi yéen ngi koy gis mel ni. pomp la lii rek mooy saxaaru sabara gis ngeen kon noonu président Bougane Gueye Dany dafa jub euh, voilà yéen a ngi euh, yéen koy gis euh, le président Euh, Bougane Gueye Dany dafa gis ni daal euh, gars yi ñu ngi commencé déborder mu daal di euh, ne gars yi nañ tourné nañ tourné ndax lépp loo xam ni daal du yoon bëgg na cee dox ndax mu nekk manifestation boo xam ni interdit dafa am lu ñu interdit woon mu di resemblement moom nag lu ñu mel daal la la la la la la bañ na ñu mu di fexe rek ba ñëpp nekk waat nekkaat ci jàmm gis ngeen Déthié Fall si mu ngi nekk eh, nekk ak eh, xaritam ak son camarade eh, Bougane Gueye mu nekk loo xam ne lu am lu am solo la mu nekk loo xam ne aussi day montrer démocratie démocratie bu Sénégal day montrer aussi ni ñoom daal ñu ngi déterminé xëy rek di nekk ci li nga xam ne mooy jëmal Sénégal la mu nekk des images fortes des images yoo xam ne aussi dafay wane détermination des Sénégalais détermination de la jeunesse sénégalaise mu nekk loo xam ne lu am solo la image yi nii dafay dafay dikkaat ëllëg incha allah day wane ñu aussi amatuñu ragal askan Sénégal amaguñu ragal. nous sommes fiers. nous sommes des Sénégalais Ousmane Sonko était responsable Ousmane Sonko est un homme doux un homme honnête ñun duñu ñii ñun dañoo sonn boo gisee xale ni ñuy saccagé affaire di dugg di